lañ wàcce gëm nañ ko lañ joxe gëm nañ ko la ilaha illallah xanaa xamal la ñun dañuy may ñun laa nu fare ko duñ séparé bay na aadidi kenn kenn kenn minum ci groupe bi ñun groupe bii bokk gëm wala bokk wéddi moo tax groupe bi boo ko ci wéddi rek wéddi nga ñëpp benn yonent boo doon gëm naa yonent yàlla Muhammad wéddi Iisaa rek xéeféer boo doon gëm naa yonent yàlla Muhammad wéddi Muusa ak ko ci wéddi rek xéeféer nga moo tax seetal mi ngi nii tey yow mën naa gëm sa nopp yi bàyyi sa bëri déedéet damaa gëm sa jëmm ji yëpp bëgg naa la bëgg naa la yaa ma neex ba sa bëri dañ maa neex la ko doy cee te ndax jubu bopp ba ca sa tànk mbaw tànk yëpp laa bëgg ah ngay bëgg ne amul séparé kon nag laa nu fa rek benn aadami ñëw woon na nu ñun ñii muslimoona wommatu la njox suñu bopp loo ñel ki nga xam ne mooy mooy laam lii day ñun diine islam mi ngi nii amul séparé tey nag boo gisee muy musiba li ma koy wax toujours ñun dañ fexe ba xamewuñ ku ne si biir maanaam la buñ jël tarika def ko ay par par par parlo buñ jël dara def ko par parlo niñ farak laaw fu mu duggee bu ne bëgg naa ñu ne bëgg naa fu ne bëgguma ñu ne bëgguma waxuñ doo bañ de waaye doo bañ de sa bakkan tey tey bu ngeen dégloo siñ bi na tey bi xaadimu rasul niñ ko tekkee tey ndaxte sa ruux bii mooy rasul dëgg-dëgg boo liggéeyal sa ruux bi yaay xaadimu rasul soo fekkee ne bakkan nga ñaan ngay xaadimu xaadimu seytaan ñaari wax dinaaw na jëñ nit daal maa ko ñaari ñaari ko waaye farax taxamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fukk raqaba gis nga yëpp boo fexe sa baat bii nga xam ne tey bakkan moo ko njëkk mooy sa ruux yoo xamante ni yeewi nga ko ba mu mën a doxi liggéeyam kooku yaa bëtt montagne bi yaa ko yëg mooy nag kooku yaay xaadima rasul liggéeyal ruuxu waaye ko liggéeyal bakkan ñibbi ba bakkan ñibbi rek inna nafsa la amaaratul boo du def lu baax mukk kon nag fii la ñuy jàngee ba xam ñu ne waaw ñun suñ ndeke julli laysal biru an toolu wujuukum qibala masriqi wal maghrib ngeen fay na julli mooy dem rukkoo sujjóot ah bay na ko sax ba ne waylun lil musallin mosuma dégg jàmm yàlla goo xam day day dugal borom soxla ñu ne ah yàlla masut waxul sax ci waxul dara ñii musaliin ñu ne ko musalima ma àll na salaatin waaw léegi jamañ la wax da est-ce que ndax mën ngaa jul tudd jamañ man de li ma jamañ ci yoon xamal la kon luy musalin mooy koo xam ne yaa ngay julli te julli gi xamalul lan li nga xam ne mooy dëgg dëgg julli doo def doo def cër julli julli du du noonu de ndaxte moom boo ci branché julli mooy loo xam ne boo ci branché woo junni moo lay branché xam nga nu mu lay branché sa cinq kaabal yii ji nga cinq câble yi nga xam ne moom bu branché ci haute tension bi cinq câble yi yi nga xam ne dañoo indi haute tension mooy ñetti ñetti câble ñetti câble yooyu dafay dikk jox nag cinq câble ñetti cinq câble yi nag bu fekkente ni am euh, branchement ak trois yële ndax dina am courant dina am courant du mooy nit ki nit ki taa yoo xamante ni débranché wu na la mooy julli julli julli yëpp julli goo xam ne julli ah, yaa ngi ci. yaa ngi fay facture courant te doo am courant wooyu lu lil mos alisana talatim julli gu la dindiwul ci càggante caay-caay ñàkk fulla bon bu la ci julli lu mu la jëriñ ina salaatana anil fasaay wal munkar julli bu dindiwul lii baaxul fasaa boo ko déggee rek mooy jëfi saay bu bon munkar mooy jëf joo xam ne xol bëggul ko ñaar yi ngay bàyyi fasaa ak munkar di nga alquran du indi benn doo defar biti bàyyi biir doo defar biir bàyyi biti bi saayiri sare wanooru mobile oro bi saali kina gis nga de saali kina ñi sóobu ñi sóobu ñoom naa di tarbiya bi laa kadin wala taal waaye ku sulukut ku dikk jàpp waxuma jàpp de da ngay def suluk kon nag lii laa bëgg nañ ko xam suñ ko defee jëriñu kon nag war na ñun mus lawoo muslimoo lawoo léegi nag cooli na jeex fa in aamano bu dee gëm nañ ñoom yahud ak nasaraan bi mislima amantum comme ni ngeen gëmee bii ca noona su dee ni ngeen gëmee gëmee nañ ko fa qad ihtadaw gindeeku nañ jub nañ wa in tawalaw suñ lànkee fa innama hum nekku ñoom fi siqaaqi nu mooy ci ñàkkaat digoo maanaam jubati ci jubale nekk ku di ci diina ne jub na waxu dëgg moo tax nag nga nekk ci diina ji ne man yàqaluma dara ci mbiru mbirum àdduna moom naa ko réglé na ma ko bëggee yow nga jàng ba nekk avocat nga jàng ba xam ci dépee nga ñàkk nekk premier euh, kile te xamuloo alquran ni muy attee c'est dangereux kon nag képp ko ci fii dem toppi leen fa innama hum wér na ne ñakkum maanaam illa fi siqaaqin moo tax min boobu damaa bëgg ngeen tàmm ko innama innama lu mu dugg dañ ci dugal wóor na ma ni dañ ci dugal dàq dañ ci dugal dàq dañ ci dugal ilaa moo tax te mooy wax ju dëgër la wér na ne ñooñu nekkuñ ci dara lu mooy ci jubati fa innama wér na nekkuñu ci siqaax lu mooy ci jubati mooy lan siqaax mooy kii wax lii kii wax laa mooy jubawu la fa sa yàkki fii ka xel naa fegal la xumu ñoom allah yi nga ne ma ko firi noonu fa sa yàq fii ka xel si naa fegal la yow mi sax ci diir ji xum ñoom ñu ci taw li nga dafa ko wax benn baat moo dikk yow boo boo bu fekkente ni yow jaar nga fi yàlla wax xéefee du na mën a dara moo tax walan yajala laahu lil kaafirina alal muminina lan la ko dàqe mën a am mukk yoon mu mën a jaar dal ci kaw muumin amul kon nag boo gisee musulman bu njàpp bu loo ne ko na ko waaw lislaam xanaa ko nga gis ku ñu moo ko ci kaso ah, <laughs> ndax ndax lu ko ci génn te kat doog daay ko yàlla waxee wala nu yecc ala defuma tey defuma ëllëg benn yoon bu mën a jaar dal ci mu'min waxu leen musulman wala nu yecc ala kon nag fa sa yekk fii ka xel ci naa la humu ñoom allah cay humu ñoom fa sa yegg léegi nag yow mii yow mii képp ko taxaw taxawaayu Muhammad bi rek kaaf gi yaa ko moom tey boo taxawee ci Muhammad taxawee rek yaa moom kaaf fa sa yegg fii ka xel ci laa fegal yow jullit bi xumu ñoom xéeféer ya ku la ko fegal allahu laaw fi ñu ne ah waaw man yàlla moom wooy moomi yi nekk ci kaw suuf yëpp mën naa régler seen am xol lim ci tel woowu wa kii nga xam ne moo leen dikk ne moo leen di fekk asami moo dégg kàddu yëpp alalim moo xam ne xaw lépp ah ji nga ji nga moo tax ñaari baari bu ñu ko indee dañ koy dugal foo xam ne xel man waaw lii kaw suuf yëpp milliards yi milliards yëpp yàlla mën naa kenn ku nekk mu xam na mu koy toppatoo mu indi nag wa huwa asamiu xam nga nopp la ñu ko am ndaxte ku lay pexeel am nañu pexe man dégg naa pexe ma al alim maa ka xam pexe ma moo tax ñaar yi laa boolante moo tax pexe ma du agsi moo tax mu ne lastu ahsa kay kay du ahsa aada in wala jëwru subaane man kay ragaluma pexe pexem noonu du ma ragal eh, eh, saay-saay bu dëng lii na li ko bàyyi gis nga li ko bàyyi waxee nii maqaama Ibrahima moo ko indi soo demee ba àgg foofa dëgg tiit mukk ala inna awliya allah laa xawfun alayhim wala hum yasunun walu yàlla du ragal tiit ñu ne ko alisina amana wakkaanu ya tëkkun braam yaa ngi dégg te ustaas bi moo jaaj boo tàmbali jaay àgg li ah xamal sa noppi li mu ci doon noonu lu mu lu ci doon moom ah léegi <clears throat> ñoom ñi am imaan ak taqwa ñooñu ñoom duñ tiit bu fekkee nag <laughs> ngay ngay déglu ngay déglu am loo loo déglu si si téléphone ak kii ñaari du ñu am de ah oma jaalo la jëm leen xel bay ni ñaari xol boo ko amul doo am ñaari nopp da nga dégg benn da nga dégg <laughs> waaye ñaari dégg doom ñaari dégg doom mënut a kon <clears throat> bokk na ci aadaabu teggiin teggiinu déglu ki lay waxal xam ne yaa ngi koy bàyyi xel dafa am importance ci ci kii waaye koo xam ne mi ngi lay yaa ngi toog mu mel ne mi ngi lay déglu waaye amul soxla fi ngay wax baaxut ci ku baaxut baaxut jàngale ko te it baaxut yow mi yow mi koy def de c'est moo tax eh, gis nga xadara xadaratu jàngale pays surtout ak pays alxuraan dafa dansé te ñu nag dañ nekk foo xamante ni boo waxee nit te doo sëriñu mu sëy ku mu rabim du ko def <laughs> nii kii nii lu ba ni ko bàyyi nee na yoonam new ci loolu nag nañ ko moytu ne ko ñun daal seetal waa waa ñi nga xam ne ni nga ko jàng ci addis ñoom ñu ba nuy ba ñuy julli am ku fekk bàyyi ko ne ah ay wàcc na de tey dañu yàlla du xibla rek fekk ñu nga rug ko rek ñu daal tourné lii mooy jikkoy jullit loo nekkoon te du noonu boo déggee noonu ah kon bàyyi na ko kon nag waxuwa asami al alim ah léegi nag <clears throat> waaw léegi rafet ngeen de xoolal rek xoolal mi ngeen rafete rek ñu ne waaw lii nag lan la mu ne sib xasalaay mooy cuub ak laaw laaw cuubam ki mu ngi nii millatu islam mooy cuub ñoo xam ne boo ci nekkee moo tax di nga jullit da ngay gis gis nga gis nga koo gis mu gaaw nekk ci diine ji rek gaaw a gaaw a gaaw a gaaw a maanaam gaaw a om yooyu <laughs> gaaw a màggat yooyu diine ji moo manqué diine ji ma sikk sikk nekk ci yow xool bàyyi ba ba muy dem juróom-ñaar fukki juróom taa yu ko xoolee ak taar bi xoolee gaa yi rek ji nga ñu nag dañoo sàggane diine moo tax amuñ poids diine day joxe poids moo tax sib xatala cay ci loo yàlla moo tax boo séenee gars yi dañuy dañuy rafet biree moo tax ko nag salaahu ay bàyyi yarahu li muslim bi taaru salay da nga mon mu ne bàyyi na sama sama sama gaay boo leen séenee dañoo yiwee li mubsir ko am gis-gis soo séenee ko xam ne man la rey ba taxawee ma soo ko xen ah kii day taale bàyyi kii ñu ne ma ci gars yi bàyyi nag ñi nga xam ne am na gis-gis kon nag maa leen suubee suuf bii léegi ah, yàlla lim ñu suubee lan la lim ñu suubee cuub gi lan la ndax xam nga cuub yàlla du benn couleur na nga gisee benn pepp ndox moo bàyyi ko ci asamaan ndox ba mu taw saxal kaani saxal limon saxal mango saxal yépp lii kii génn wextar kii génn neex ci génne forom noonu la génne nii bii weex ñii weex ñii ñuul ñii xonq waaye nag ndeke ñuulaay ak weexaay xonqaay du cuub ak yàlla gi bàyyi ko de bàyyi ni famille hubbihi tabyadu soodun wa buxdoo bis wax da aqwaamu li amul lu ma wax dama koy indi ci tey bàyyi ko mu ne bëgg bàyyi bëgg bëggoon bëgg rasulaay tax na tey ñu ñuuloon ñoo weex tàll te mooy ñun ñi mu ne bañ ko ne tax na ñu ñoo ñu weexoon ñoo ñuul kukk tey bëgg yonent bi kon ndeke mooy cub ga fa min hubbihi tabyadu suudu woo buxduhu bis wada aqwaamun li amul minal biri damaa bëgg yéen jàngkat yi nga xam ne jàng nañ nañ nañ jàng téere bàyyi ñu xam ne téere bàyyi dëkkul comme téere nii jàng téere jàngikaay pour dégg hadis la téere jàngikaay pour dégg alquran téere jàngikaay pour defar tawhid téere jàngikaay pour defar iman téere jàngikaay pour defar addina téere bàyyi yëpp la loolu yëpp ñu ci lépp def ko volante kon waa ji nga la nañ fexe jaar yoon woo xamante ne buñ fi yaari dem lii mooy siqat lay ci bugaamu de kon nag waman ana kan ahsanu moo gën a rafet min laay siqati suuf ci wag yàlla ci ko gën a rafet am na déedéet waaw ana ci wam gi nag moo tax dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla nit dëgg dëgg yàlla boo gisee ñu ne sóobu xam nga mbaam dañ koy sóobu yàlla rek ci yàlla yàlla rek moo mën a jël fekk lu ñuul mu def ko lu weex waaye suufkat yëpp tur na leen suufkat jël jël jël jël lu def ko lu weex jël lu xonq def ko lu weex jël lu ñuul def ko lu weex munu ko benn suuf mënu ko yàlla rek mën loolu fekkoon nga seetal gis mu ne ñun ñu tey ñoo kon kay xam nga ne kon nag dëgg yàlla li mooy ci wax yàlla <laughs> ah ñu xonq ña tey ñu ñoo ñoo weexoon ñoo ñuul tey ndax lan bëgg yonent bi mooy suub bañ yonent bi mooy suub kon nag lii wa man ahsanu ana kan ma gën a laaj si xaran cuub kenn wal na xam ne ñun nag xaabidoona ñun dañ koy jaamu nag moom la duñ jaamu yowut duñ jaamu nasaraan duñ jaamu kenn duñ jaamu nit duñ jaamu yonent duñ jaamu wali duñ jaamu kenn wan naa ma aabidoo lawoo waaye bëgg lu neex yonent ak ak ak nit yàlla nga ne maa ngi koy jaamu ku toppatul yàlla na topp waayam mbaa lu ko neex lu ko <laughs> lu ko dal bu mu kookul falayam du noonu de damaa mas a dikk ci koñ bii nii ah di dugg si jëm su kër baay ma fekk ñaari waaye ngi kii mu ne man duma ma topp sëriñ de jaamu na ma jaamu kële ne ko man de damay jaamu mu ne ko waa waa ji nga xam mu ne ko waa léegi iblis ko ko topp fu mu jëm waa ne ko iblis ko ko topp safara mu ne ko waaw kon boo toppee jaamu yàlla foo jëm ma ma ma ma ma xaw ko ma ne ko eh yow yaa topp yow yaa topp iblis kii moo topp yàlla yow seetal ci kër lii la ñuy naxee nit ñi gannaaw su sëriñ kay gannaaw mu kon luy wute sëriñ day jaa xam su xam sëriñ ma di dee jaamu yàlla déedéet du benn sëriñ kum neex ku ma weddi doo indi ba indil sa sëriñ ne waxu ko sa sëriñ weddi na ko ku man doon am ku man doon kon nag war na ñun aajo joo na la ko dañ ko jàng ah léegi nag <clears throat> gars yi commencé waxu waxula dëgg nekkula dëgg Ibrahima defu doon nii Ibrahima defu doon naa ah léegi nag kon Ibrahima coow na jox na ah ñu ne atuhaajuuna naa ndax da ngeen di xuloo ñun fi laay ci laaw yéen yow doon faral yéen da ngeen di xuloo ñu ci laaw woowu laaw mi nga xam ne ñun moom lañu jàng rabbu naa mooy suñu rabbu tey a dugg mooy sa rabbu ñoo bokk rëbb de iblis iblis ñoo moom ñoo bokk benn benn baay iblis ñoo bokk benn baay benn waajur mbii fi mu ah, seetal xam nga nit ñi dañ foo ne mas ngaa dégg aadamaam fas aadamaam xar aadamaam bëy aadamaam nag mas ko dégg kon lu am aadamaam nit aadam mooma nag seetal wa maa min daabatin fi l ard wala taa'irin yatiiru bi janaahihi illaa umamun amsaalukum amul koo gis muy dox ci suuf muy sànqaliñ ak ñey amul luy naaw illaa umamul lu may nation lañ comme yéen waa léegi nag loolu lañ koy defee lu tax lu tax ñële génn mel na li ñu ñu ñu des ci li moo tax waxtaane tëjali ci kër gi dafa garaaw tëjali kenn ko waxtaane ndax xamuloo tëjali mësër nga xam mësër moo fi ne waaye tëjali gisuloo ko tëjali kenn gisu ko mësër nga gis léegi nag tax te bàyyi ko wax تستر في الالباس في الكون كل مسائل اي ما اي في حكاية الباس لهذا المقصص مقصص من كان لا ليك نك سوكو ديفي دا ورا خامنا اه نديك رب بين رب في كات نغا غيسي ادم منم ادم مودي كد ادم ген ني في نك ييب باج ديمي با سي نو نيت مو ام اري خام نغا دا ام اري ليك ادم سيسه ادريس نو awalu aaxiru gis bi nii lay doxee aadama awaloo aadama aaxiroo Cissé saayiroo Idris dikk baat na ci noo léegi benn xaalam juddu ñu di indi óolu xasmi mooy kan noo Ibrahima Moussa Hinsa benn xaalam të xaalam xaalam daa xaalam beneen alam ubbeeku moo tax Insa bi mu dikkee dafa ubbeeku beneen alam ñoom yëpp moo tax alfaati xaasimi yi nii la fi nekkee faati xaasimi euh, ubbi tëj. ku bi tëj ku bi moo fi nekk lii nag moo tax ñi nga xam ne ñoo dëkk tariqa alfaati xaatimi naasiri haadi xëy buñ xamoon ni ñuy wax xëy buñ xamoon kon nag yéen da ngeen di yore ñëpp laay woo rëbb naa wala bëgg ko bàyyi leen coow li wala naa ñoo moom ah amaal naa luy liggéey suñ jaamu yàlla du ñoo ko moom wala comme yéen moom yéen tam amaal ko kon yow yem ngeen ci li ngeen nekk ñun nekk wóor naa ñu nag muxlisoona ñu sellal loo jël yàlla ñun dañu def ixlaas duñ boole yàlla ak dara duñ ko bokkaal ak dara duñ ko taqal ak dara ñun loolu fekk moo tax jaamu yàlla gii jaamu yàlla gii saytaan na saytaan eh, nit ñi da def da ngaa wax ne bu yàlla soob sëriñ bi wala su ma defee nangam il faut que nga indiloo ci tax ñun sénégalais sénégalais bu si wécc wécc wécc wécc wécc eh, dikk ba ci kër baay ba tarbiya ba pare wëlbati ko naan bàyyi yàlla wala sama sëriñ yàlla fii xam nga ñu moo tax walla xam fu mu jëm kon tarbiya lu mu ci génn seetal wala nga tarbiya taali ba mu dem ba ci yàlla nga foqar ne ko ko ba nga ko foqar ne nag mu def fonk la fàtte yàlla boo waxee mu ko sax waaye wax waxu yàlla <laughs> loolu la dul wa nahnu lahu muxlisoon ñun dañ ko sellal duñ ko boolante dara dara dara bu ngeen dégloo tey bu ngeen dégloo ci suñ dër si mooy euh, ñetti fan yi Cheikh Tidiane mi ngi leeral shirkul axram euh, euh, bokkaale boo xam ne xaajo nga ca roofaale jaamu yàlla xaa roofaale ca xaajo bu faju naa julli ndax yàlla <laughs> sama dossier bi ma déposé ma ji nga de koo fekk mu nekk soxla ah dugal nga ah <clears throat> maa maa julli ndax sama aaju na nga bëri xam ne yaa ngi ko gis muy julli tey am na fan yoo xam ne ci dafa nekk si ay problème taa yu jeexee rek jeexal na ci la waa ji waxoon ci jàkka alaji rawan man de bi biñu may bëgg a dàq sama place jot ji lii jàkk ji li ma fi julli yàlla ma ko julliyaat ah bi ma bëgg a dàq sama place fi laa doon jullee te jàkk alaji rawan waa léegi ku buñ buñ ma bëgg a dàq sa place nga julli soo bëggee ñu fal la place nga julli suñ la bëgg a folli nga dem nga dem julli suñ la dem léegi daal seetal soo bëggee de nga dem siyaari koo dégg mu ne maa ngi dem tey ne ma damay siyaari dëkk dëkk dëkk yu sell yi xam nga Sénégal dafa am dëkk yu sell <laughs> yoo xam ne <laughs> kenn ko ne moom jàpp na mooy sa dëkk bu am problème nañ dem ñaani waaw sott na jigéen ñi acca nañ dem eh, dem ci dem ñaani ñaani xale yi nañ dem nangaw moo tax boo xamante ni aidement jib si na rawat nañu ne ay examen eh, eh, bu ko rogee day sarax dina bëri ay sonde la ko ma xam ñun nag duñ def loolu lu ñuy def dañ ko def ci sellal wan naa am na loxoo aabi doon ñun boobu dañ jàpp kon nag léegi bu leen fi xoolal ñun def leen seen liggéey ñu def seen liggéey yéen a moom seen liggéey ñoo moom suñu suñu liggéey wana loo moom seen fa taxoon ah am moom kay li nga am googu ma ko fi am moom kay yàqoo loolu lañ ne inna ibrahim ibrahim wa ismail ak ismail wal ishaq ak ishaq wa ak yaqoob والأسباط أسرية قبيل كانوا نكوني هو دنيا أيه أو نصارى ها ينون ينبغانا غني لذلك ما نيرة إيه كبر قبل إبراهيم يهود لون إسماعيل يهود ل إسحاق يهود ل يعقوب يهود ل سيدنا سيدنا دوم أيهود ل كم دول يهود وقنا على كبتاي إن هودنا بنتوني نتوبني جمعنا بابا هودنا ليه ñun nag mu ngi doon ba tey ne tuub tuub tuub tu ilay yaa ilay tuub naa ndax tuub naa tuub naa diin la kon nag tuub naa ak nasaraan ñi nga xam ne ñoo dimbale Insa ñu ne ko nanu am sar ñoo lay dimbale ndax ndax ndax loolu diin la déedéet kon nag boo dikkee tudd jaamee ansaaru diin na nga xam ne du du diina de jaamee ansaaru diin dafa dikk pour dimbale diina ji waa di ko pour leneen du diina de kon nag dimb doo nga cay yéen ngeen di ko wax loolu ah <laughs> jum ngeen de xul wax leen ñoom ñi bëgg a sukkandiku loolu ah, antum ndax yéen aalamu yéen a xam ami laa wallaaw laaw xam-xam ak laaw ku si ëpp xam-xam laaw de ñun li ñu waxoon mooy junjewut ak nasaraan yéen na ngeen dikk ne ñoom yom ay yuuta nasaara waaw ku jëpp xam-xam soo leen ko laajoon ak nañu ko fee sa yàqulu dana asufaawu moo ci tëgg de ah sa fii tër tër daa daa bëri waa kay dina pour waa léegi nag <clears throat> waman ana kan aslamu moo dàqaatooñ men koo xam ne katama nëmb katama nëmb da seede xendoxoo buñ ko dégg mel naay bàyyi ko ca ndaxte képp ji nga kat képp ab yowul wala boog képp koy nitu yàlla su paree dénkaan ne ah xam na am na waa ju ñëw ba si ñëw de yaay te suñu mel ba isma ahmad xam nga ko mu jox noon la yéen ci waxee nag bañ dikkee nag ba gis ne nag ah hee eh, mbir maa ngi de waaye dañ yaakaaroon bu dikkee yahud lay nekk wala nañu ci israël lay dikk wala nasaraan mu dikk génn lañ wëcc leen dem ci dem ci arab xam nga yàlla moom da ko wutal pénc xam nga ñun ku ne ku utal nga yàlla penc tey foogoon nañu Sénégal yàlla bu dikk Sénégal kër sàngam lay dal waaw léegi nag bu dikkee ne daluma ci kër yi ngeen xam yépp century yi xam nga fooy fooy dal ah <laughs> ñoom ñangeen lay lay wala maa ngi dem ñoom ñoom waa ngi dem waa ngi ñëw wàddeen wala maa loo ca man ah te tey nag ñun waajal ñu loolu de ñun wuutal nañ kenn ku nekk daal gis nga maat yi bu dikkoon tey. sant sant sëriñ kenn xanaa sant ci ma sant yi ma tudd mu toon sant ci benn dana fa nekk ba am ñaari junni at la la noo amoon du ko am lii nag damaa bëgg nañ waajal suñu bopp xam ne lii lu ñuy nekk la de waaw léegi xel xalifa bi yàlla bii dikk sant Haydara sant dikk sant ñas betoo te kat yéen fàttaliku leen waaye ñi nga xam ne ñoo commencé à fàtt ki nga xam ne ñun mën nañu fàttaliku année cinquante ndax année sàggan dee ma nga fekk ci daara ma nga fekk ci daara daara daara daara daara cera cerali a naqari nga boo sàgganee boo benn nga tibb suuf lekk wala nga lekk cox wala nga dee na ma fii fàtt lu bëri tey jamono booba ba jamono bii nekk maa ngi fàttali ko xam ne fi nekk jamono booba jën nga ku sant ñes ak caam wala mbaw soo jëlal soo ko abboon yére moom su la abboon sa yére sol ko su dikkee nga ne ko may ko bu ko ko sol bu ko sol sa yaram day day day day day fut lii moo fi amoon seetal kon nag niñ daaw ni ko yàlla dikk na waaw baax na man de du ma sant du ma sant xay dara de sant yi ngeen yaakaar du ma sant maa ngi koy sant boo xamante ni kenn yaakaaroo ko yàlla foo foo ko yaakaar rek lay dikkee kon nag nañ moytu ne ko de xuutal yàlla place yàlla amul tur amul sant amul dëkk amul xeet kon nag lii day واخلن كو يوم كون داي انتم اعلم ام لا ندخ يرا خو الله ومن اسلم كان مداقته من كو خمن كتم ساد ينتبو خام سيدي بو لو نه جولي دي كره ديو موم بو ديكي بريسانت كو نيت ني ندخ تا يوم سليغي جيخنا بو ديكي نري من كان ناغي لي مي دوتر فاصون كي مو في نك داي سين ديريكتور ام حاب ان لا مو ليغي amul benn service ni nga gisee service tey amul service boo xam ne borom day kay bàyyi bàyyi service rek dem yoonam il faut mu dikk nag bu dee directeur bi leen directeur dikk ñu dellanti lengay bu dee président président ñu dellanti lengay dellanti lengay moom mos nekk ci sa ci na nga dikk ah yow nga ne man kii sama opposant dama kii moom kii ni ni ni ni Trump def <laughs> Trump <laughs> Trump xam nga doo ko ñëw moom du du du doo doog du doog a kii eh, ah, ah, Biden du la def def nga loolu loolu loolu jub la kooku dof la. loolu nag la def <laughs> li nim nim ne man nangu ma ne bàyyi kii la loolu la la jikkoo yahud yi la ba tey boo nekk ci moo nekk trompe moo gën a nekk yahud moo gën a bon ci yahud kon nag lii day mooy musu waa man aslaman katama saadatan indallah ind ind saadatan indoo minallahi wa ma laahu nekkul moom laahu bi xaas fi leen day ñàkkaa xam xamaa taamal li nga def ku ne fu ne xamal li nga def li ngeen bëri bëri tappale ak li ngeen di bëri bëri ci kaw suuf kenn ku ne lu mu xëyee lu mu gontoo lu mu indoo la nga xalaat waxoo ko ko sa xam naa ko moo tax comme yàlla nañ fexe waay gars yi nga la ñun ba ñuy contrôler ba ñuy auditer fekk nañu fekk fa lu set tey nag gis nga boo gisee ñuy ut sëriñ lii la kat mu lay dimbale pour nga arrivé bu ëllëgee nga mën a am dossier légal waaye astafurlah salaatu ala nabi laa ilaaha illa jaru jaru wuti kenn xalalu yàlla kii nag dañ ko dañ ko dénk rek ko def ci joxe waaye nag loolu dun sulooku sulooku moom da sulooku da ngay kon nag omala eh, <coughs> bi xam ne ama sa amaloon eh si kenn si ko tilka ummatun groupe la ñi ngeen may limal Ibrahima nangam waxoon naa ko maa ngi koy waxaat yàlla xam na ne nit ñi dañuy koom dañuy dañuy compter ca maam yi toujours te yàlla moom damay dajji compter ci maam toujours moo tax fu ñu daajee rek mu daj tilk ummatun xat xalat passé lahaa ma moom maa kasabat liggéey ma nga compter wala ku ñu ne moom maa kasabat liggéey li nga liggéey wala tuus aloon bi leen laaj bu ëllëgee ama kaan la ñekkoon yokkoon def def da ko def ñoom paaya sa baay la doon ko def kenn yomal xeer la nga doon def laa la laaj waaye dama laaj sa baay la mu defoon dama liggéey bàyyi tiitaroo ay maam ak damel ak ma lu ma ko su ma yoon naw ci de waxal naan nag alxuraan moo tax alxuraan dëgg dëgg yàlla billaay su fekkoon te man ne maa ngi bëggoon gars yi lii ñu firi nii man de fas naa yéene incha allah ñun luñ liggéey dañ ko def dañ ko dajale ci benn benn pot bi maanaam benn kele ba léegi wallaay nañ bàyyi déglu déglu déglu xaar ñi nga xam ne mooy ko nañ déglu dëgg ba dëgg sax ci suñu nopp yi dëgg dañ koy ji de dëgg moo gën a naqari ji dëgg da ngay da ngay ji nga nga ñaari fan dikk fekk mu dee ndax lan arosoo ko xam nga ñu arosé dëgg dëgg naati làqi làqi loolu dimbale dëgg lu dëgg mu ñu ngi ne kon nag lii nii gis nga naasirul abd naasirul abdi bil ibaada dimbaleel jaam bi ci jaamu jaamu yàlla day joxe kattan dëgër <laughs> jaamu yàlla day joxe doole gis nga boo dem boo fàttali ko jamonoy mag la bañ dikkee ba ci suñ jamonoy xale yi tey nga gis na xale yi ni nga xamante ni tey ñun jamono bii ni ñu ñoo leen doole tey ñii ñun itam nañu ëppoon doole si ñi nga xam ne mooy ñeneen ñi nga xam ne mooy <laughs> wax aw yi duñ buñ toogee fii ne di xolo maa ngi nii toog ci ni ma jataayoo nii laa defoon léegi ba léegi ba foofu kañ lañ pare du une heure demi trois dem jëm deux heures mooy lañ wàcc léegi ma di ko toogaat ko ni jëm ko léegi ba lan ba cinq nañ dem am na ñoo xam ne duñ mën a toog yàgg ca <laughs> am na ñoo xam ne dañuy gëmmentu <laughs> xam nga lu lu nga nekkat billaay li ma la xam kattan li yëpp ci ceebaat bi la ah wóor na man man ba ma nekkee mbenn juma ba may jàng ba def ca tool damay dem ca tool yi damay lal mbalaan wusi fa la ma nekk nag boo mag boobu xale bu ndaw laa tollu ma nekki ba fi may waxee yow nii manque ma wusi fa manque ok nii laa ko nekkee ah da mosuma tëb buum mosuma entraînement mosuma daw ay mbedd mukk xaw ma ci dara <laughs> xaw nag li ma la dama dama nekk loo xam ne résultat bu nga génn kon na na ngeen dëgalee abdu bi ci ibaadaat yi juróomi waxtu nga dëkkee ko heure bu ne nga julli ko ci heure am julli ko ci mbooloo ndaxte yàlla du julli yàlla du julli moom kenn inna allaha malaykatu yusalluna jullit mbooloo la huwa la si sa ci julli si ñun jullit du def julli mbooloo julli kenn huwa la si yusalli alaykum malaykatu yukhrijukum mina zulumaati lii la tariqati yaan jële jële jullit mbooloo jullit mbooloo gii daf lay won jullit mbooloo gële ndax ñoom ñooy synchronisé léegi nag soo dee julli yow kenn sa julli ga julli ga du am poids li ma leen di wax nii mooy li am de kon nag <clears throat> damaa bëgg ngeen dëgër këcc loolu laa wax de lu ci tegee ak kay mi nga doog ak sa yàqooloo dana ma sa wax bokk na ci kii mën a yonent bi luy bëgg a ñëw diwen wala ëllëg moo xam ko tey sa yàqoolu dana ma sa wax ci liy ñëw atofahaawu dof yi sa saf yi mooy ko am xel ba ñu ne la nit niti nit bu nitewut mooy sëfi ñoom ñi nga xam ne nitewut mi ne naas waa léegi maa waalaawum lan moo tourné maam ni xam xibla tiw maa nga maa nga bëgg a jubal ci tourné jëblu xibla ndaxte booba yonent maa ngi ànd ak ñoom fukki weer ak juróom benn ñu ne juróom-ñaar ma ànd ak ñoom di jublu baytu maqaddas léegi nag am na luy bëgg a ñëw si mooy dinaa la génne xibla bi nga jublu beneen xibla keroog bu ma la tourné ne xenul fii ñu ne maa waalaawum xan xibla tiw lan la lii waaw lu tax lu indi li te kat gis nga li ma wax nii billaahi laa ba tey teel gën a nekk gis nga fi mu ne yàlla fu mu nekkoon ba toxu fa nga toxu fa yàlla nekk ci bees sa mbokk yi wàcc la mi ngi nii boo gisee nit ñi du ñu uy ji ragal seen kilifa yi ragal yahud yi moo tax yow yi toppoon nga dugg nasaraan boo demee ci këri tariqa yi tey kenn ku ci nekk ba tariqa tijaan dikkee folli tariqa yëpp nga dem tey daan jëriñe ci seen secret mëntu jëriñu xam nga ne foire nga ndaxte wa siri sarafil xaafi xëy ni woo xaman siyxul alaw ata yow la jëriñ siru bii mooy daw ci penku ñaari penku yi ku siru bi ku ci ku jëlu tey góor la goo xam ne yara dal nga mënatoo dara xam nga boo takkoon ay jabar daan jox aye yaa yëg ne mënatoo joxe aye yaa gën a xam ne mënatoo joxe aye xam ne mën la joxe aye ndaxte taalibe na nga koy wax xàqu mu dugg waaye wax wax yoo xam ne boo ko waxee tey bu ëllëg saa nga waxal ko ba nga jaarul ko jàpp dara du waxi dëgg koy dégg mu sax kon nag lii ñoom nag ñu ne waaw léegi nag maa waral man xiblatin alati nga xam ne kaan nekkoon na alaay ci ñu jiir ah waay waay moo moo moo bëri moo bëri problème yàqante waa Màkka dikk fii jubag ñun benn at ni nga maam ay weer commencé na problème xool wax leen na leen للي لا هو موم وخون ناكو من قوي وحان المسرق فنكو والمغرب أكسو تكت نيجي جيسي جنتي بي فنك داي جنلي داي وري جنتي بحق نيجي جيسي ويروي داي وري ويروي نيجي جيسي بيديو داي وري بيديو دغرا موتا رب المشرق مونيك موموم مشرق اك مغرب مشرقين اك مغربين مشارق الارض اك مغاربها ñett yi mooy fenkukaay bële benn la bële fenku ñaari fenk la bële ay fenk kaay lañ masriq rabbul masriqi ak masriq lii leen masriqu wal maxrib ndax dëgg la laaxu moom un un du ci jokk moo tax moom benn fenku benn sow la ilaha illa la léegi nag mu am nag wax nañ numéro deux la mooy ñu ko tuddee këy bul këy bi wala ësali ësal mooy rabul masriqayni wara bul maxribay ni moom itam am na ñaari fenkuwaay ak ñaari sowwaay benn bi nag mooy masa moomoom masaariqul ard ak maqaari kooku moom ñetti ay ñetti fenkuwaay la ak ñetti ak ñetti sowwaay lii nag moo fi nekk maa ko moom te nag benn bëleeg benn bëleeg kenn ko moom ñaar ñëleeg ñaar yëleeg kenn ko moom ñett yëleeg ñett yëleeg kenn ko moom duut duut duut ay kee fi nekk de loolu mooy problème bi nag xam nga un ak ñaari deux ak ñetti trois lan la si si du du du six du du six du juróom-benn xalaqa samaawaati wal arda fi sittati ndax juróom-ñaar ndax juróom juróom-benn fan la wala juróom-ñaar ah yaakaar <laughs> naa juróom-benn fan la léegi fu ñu foofu lañ sox ah ana ana kon jumaa ah, lu mu tudd dajeekaay xaw ma nag kon de bëgg. yii bu leen eh, jàng ci alquran seen xel mi ñàkkaa ñëw xel dafay ñëw yu sa kiihim daf ne taskiya ñawal xel yi kon nag buñ ne soyekaay ak jot yi ngi ni de mën ngaa dem ba ne ah, te nag maarifa biñ nekk tey li tax mu raw maarifa yi maarifatan yëqiiniyan soodiyan xiyaaniyan su ko nit ñi mate woon dañ leen doon ne liñ leen wax mi ngi nii tab bi lay mi ngi nii mi ngi nii de waaye nag ah gars nag gannaaw danaa ñi ko ñi ko jiitoon ñoo ne ku ko wax dee ñu noppi rek ku ko wax dee rek de <laughs> dégg nga de li lay masrik wal maghrib yahdi nga jubal fi man yaa koo def yal na yàlla dundiwaat ci yoon mustaqim jub ku ma neex ma teg li ci siraatal xam nga loolu la ñu alquran wax waaye siraatal mustaqim la wala dégg nga siraati sa yoon woo nga xam ne dafa mat jub. kon kan la nit la koo nag boo ko xamee foofu nga foofu nga gindee ko waaye téere bi boo ko ubboon ndax gis nga siraatal mustaqim déedéet kon siraatal mustaqim mooy koo xam ne daf naan la waaw nga boo ne waaw bu waaw jotee mu ne waxal waaw bu ne déet mu ne déet bu sudu koo mu koo mu sujjóot mu sujjóot mu dem nga dem nga dikk nga dikk mu ne waaw kenn ngay defee rek ba jub ba mën a bëri loolu nag mooy day gindi ilaa siraati mustaqim waxe saalika comme naka noonu ma gindee leen ngeen jub jaxal naa comme lañ leen def yéen xeetu Muhammad Muhammad xeetam wax bu ma dajee woon ku ma xamal xeetu Muhammad mooy kan rek laa bëggoon xam xeetu Muhammad laa waxuma njool makka de yéen jaal naa ko ummatan ngeen dem groupe wasatan boo xam ne yéen a dekk diggante laa ilaaha illallah xam nga wasat dañuy wax ne mooy wasatee boo di xam nga <laughs> xam nga léegi wasatee xam nga léegi boo demee ak sawri lu ñu tuddee kii xam nga bañ salaf yi dañ xeex euh, islamiste yi ak euh, tourisme ñu ne nañ nañ bàyyi turu salaf kii nañ tuddee wasatee wasatee moo ñu digg dóomu bi maanaam ñun ba bëri bëri fi nay waaye umatan wasatan du ñu nii daan defee wasa umatan wasatan ngeen dañu maandoo maandoo wasatan ngeen di ay tànneef maandoo wasatan ngeen digg doomu nag bële moom wax nañ ko ci firee ko sa xiyaaran udoolan baax waaye yéen a nekk wasat doon dëgg de ndax te bi ndikkee marajal baree ni ba ñaari géej yi ku jaar seen diggante bay na maa barta ko du kooku moo nekk wasat ñaar seetal ñaari géej ak ki nekk seen waaw d'accord waaw guddi ak bëccëg ku jaar seen diggante bés waaw kon nag kan mooy lan mooy wasat bi loolu nag yéen def naa lu tax li tàkkoonoo fu ngeen nekk so aada seede almas si nit ñi yomal xew yéen nekk seede xeetu yonent bii xeetu yi xeetu Muhammad bii ñoom ñoo mën a ñoom ñoo xam li ci fii ñoo xam li ci faa ah seetal bëccëg ndax bés fekkul bëccëg akay ah, ndax bés fekku guddi akay ah, kon ña nekkoon ca guddi ak nekkoon bëccëg ma ñoo xam ne ñoo xamante ku fi jaar kon ñii dom ñoo ñoo xam ne mën nañu seede moo tax noo bu kerogee bu ko xeetu moo noo ñu nekk noo ndax yow jotul nga sa gaay yi mu ne waaw waaw ñu ne yéen xeetu noo ndax noo waxoon ne ñu ne déer waxul dara du dëkk ñu ne noo koy seede mu ne xeetu yonent bi ah ñu fekkoon mu ne waaw alquran lu mu wax xam naa ne mooy dëgg te yonent bi yaa alxuraan moo seet ne yonti xeetu yonti moo ñu seede ñu ne kon wax ko dëgg xeet wii ñooy seede nu kon nag nii laa ne defee nga nekk wasatan li tàkkoona sooda alanas ah su ko defee nag xeetu yonti buy seedee mboolem li yàlla yónni woon wooy yaa ko nekk nag arasuulu ndaw la sawiidan aleykum itam yéen ñun kenn mënuñu seet mooy rasul mu ñu mën seet kaytu Muhammad rasul moo leen seede ñun nag mënuñu seede ñële la ilaha illallah waa lii su ko defee lii dañu war kon kon nag ah waaw d'accord kon lii laa ko defee ngeen seede wa yàkkoon rasul sayid aleykum sayida cey waay cey ah, ma jaxal defuñ maa ngi dellu ci ci la cool it déparé naa defuñ al xibla te xibla mooy xibla mooy jublukaay xam nga sow ja fenku jant du xibla xibla mooy fa jant gis nga fii nii bu fekkoon ne xibla mooy fa jublu ca jublookaay ba alil bi nga xam ne kunta aleha defaruma la xibla bi nga xamante ne moom nga nekkoon ca njëkk mooy xibla baytu muqaddas illaa li naalama lu mooy ñu feeñal xam-xam man yetta bee ña topp arasula yonent bi mi man ak ko xam ne yéen xel dafay tourné alaaqi bi fa mu nekkoon <laughs> waxit la de boo gisee ma defoon la nga nekk baytu mu xadas yëwul yëpp wuutewuñu ak yow te gëmuñ la ba ma lay indilee beneen xibi nag boo ci leen xiwee cee ci la ñuy weeroo kon bëgg a weer ñi ànd ak yow te dëgguñ moo tax ma indi beneen xib la ba ko defee nag ba nga dem leen xibla ba rek ñu wëcc la kon nag li tax ma def lii affaire la de te billaay nga gis nga fi ni yàlla bu fekkoon ne fañ ko miinee ci la doon wàcc kon kenn du daanu yàlla fañ ko miinew lay dikk ñu ne fii <laughs> ah, mukk mukk <laughs> ah xam nga ñun doom ñun ñooy doomi man man doomi saama laa xam man waaw doomi saama ju man dara nag mooy mooy mooy sama musiba <laughs> nee man moom moom kon nag doomi sàmm yi buñ boo dikkee tey danaa waxtaan ci doomi wëlu yi ndax dana neex a dëgg ah te nag mu ngi nii moo tax ah benn waay waay oustaz waay man ñu nekkoon bàyyi ah te dëgg la ni nii bul foog ne fi ni nii ku nekkoon ak bu gisee mën koo faale yombul tax sa moo tax jàmbaar ngeen de <laughs> jàmbaar nag mi ngi nii de li tax ma na këble bi. ah kon nag li tax illaa li yaalama man yettabia rasul mim man yanqalibu ala aqibai damaa bëgg a xam ñi gëm yonent bi ànd ak moom fu ñu mën a jëm ak ñoo xam ne bu tourné ñëw ci ko wa in kaana même bu nekkee tourné bi la kabirat du rëy ak lu leen naqari naqari naqari dinaa ko def man toppatoo ma ku ma neex ku ma naqari bëgg bëgg ànd ak bëgg ànd ak ñi rek xal xool ñi xool ñi bëgg ànd ak taalibe yi rek ci li leen neex ndax nga ami taalib ah déet te kat moo fi nekk fi ne ah dafa am ku xam ne suma baay bu ndaw la dikk fekk ma amu benn taalib ndaxte man xaw ma taalib ñu ni xam nañu man sama jabar tarbe ak lu ma tarbe te ku ma tarbe am na koo xam ne tarbe naa ko fii ñaari at yàlla xamu nu mu tudd te maa ko jox askan tarbiya du ma ko tax topp tax topp tax léegi nag mu dikk na ma daam <laughs> sa bàyyi ba bàyyi la daa xam nga fa boo dikkoon ne daam boo fa dikkoon ne Mouhamed Gueye rek daam la xam lañ xam na ma daam soo bëggee kii non ànd la xale yi naxante la xale yi ma ne kon naxante pap dëgg dëgg yàlla naxante man xam nañu naxante ma naxante ne waaye tey boo dikkoon tey ni bàyyi waxoon nga indi ko ci nit ñi fii ne ku jaaru fi du ma la tarbiya ku jaaru fi doo sama taalibe doo bëri taalibe daaw dafa am naxante tuuti kay waaw ndax am naa kon nag damaa bëgg a ñi topp dëgg gi ak ñi topp dëgg gi mais man yeen xalibu xaala xaq mooy tëstëg ah wa in kaanat la kabiratan même te euh, jàll bi kat ak lu mu rëy rëy rëy danaa ko tourné ah ilaa ala lasina ilaa ala lasina lu mooy ñoo xam ne xaadaa jëm ko allahu yàlla man daal lii moo alqal moo xaw jaxal ilaa ala lasi xadaa xam naa ko ci waxin waxinu arab ilaa ala lësiina xadaw xam naa ko waaye ilaa ilaa ala lësiina lësiina xadaa gindi ko allah xanaa ko yàlla gindi rek de ñu woon ko ne ñu yàlla ku yàlla gindi wala ñu yàlla gindi ñoom dañ ñu topp wama kaana nekkul ah gars yi na ne ah waaw waaw léegi nag Muhammad moom bi mu sampee fii léegi fukki weer juróom-benn am na saaba yu fi dee xanaa ñooy safara njëpp nga naan waaw ñoom ñoom ñoo bëgg a yàq xel xeli saaba yi xanaa ñooñ kon saaba lañ wax waaye xanaa xamoon ne yàlla moom moo ne jublul fi tey ëllëg moo ne jublu fi xanaa nekk rek lu moom moo la moo la fi jub xam nga jublu foo xam ne joxuñu ci ndigal kay waaye ñoom fañ ne ko ndigal la ah kon nag mu ne ko nag wamaa kaana nekkul allahu yàlla li yeddoy ade waaja sànq imaanakum seen gëm sànkuma ko tey sànkuma ko ëllëg kon nag bu leen déglu waxi sababu sol mooy yooyu li tax ma wax mooy man sànkuma ñi xam ne mooy seen ngëm inna laaha laaha la raoofun kuy ñéemanti la rahimun kuy yërëm la binaas ci la laa ilaha illallah ak ka ma ci nit ah kon nag inna laaha binaas la raoofun ah, kon nag fi ñu taxawee baax na yàlla na yàlla sàng ñu rauf bi ak rahim bi ah yal na yàlla jéggal suñu bàkkaar yal na yàlla dëkkee suñu xol yi yal na yàlla dàq seytaan suñu xol yi dàqal ko suñu njaboot dàqal ko suñu ñëpp yal na yàlla saxal ñu ci dëgg goo xam ne duñ ci duñ ci yëngatu yal nañ ànd ak bàyyi ànd goo xam ne ànd ku dëggu la goo xam ne bu yow yowmal xiyaam ñoog moom la ndaxte àndoo àndoo la yal nañu yàlla may ñu mën a ànd ak moom ah li nga xam ne moo tax nit ñi xëccoo muy àll addina yàlla nañu ko yàlla tàggal aje tàggal aje fa yoodal elmi wala arsaq moo ko ñaan ñu ngi koy ñaan di ko confirmer ci téeréem bii gannaaw buñ ci pare wàcc ñu ngi ñaan yàlla na yàlla defal ñu faydu warsak ak faydu xam-xam ak faydu maarifa juboo dàq corona ci dëkk bi dàq ko ci réew bi yàlla bu mu diggante Sénégal mukk yàlla na génn ci àddina euh, bi jaay Seydina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatima abdul xawal xaatim ñu sbaq nasraq bilaqi